waaye lii firndeel loolu mooy li président Déthié wax léegi révision yi révision ordinaire la waroon doon ñu waroon ko def ci juróom benn weer Macky Sall moom mooy Sénégal quoi lu ko neex lay def nee na moom révision bi ci benn weer la koy def parce que yéen jeunes yi la bañ ngeen bindu parce que xam na ni ndaw ñi ànduñoo ak moom te ndaw ñi ñooy 65 pour cent de la population sénégalaise mu ne kon primo inscrit yi nga xam ne ñi joog a am 18 ans ñëpp naa fexe ba bu ñu bindu moo tax mu ne da koy def benn weer ci lu waroon den juróom benn weer kon jeunes yi yéen a war a porter bi ñu ànd ak yéen ñu xeex ko mu jeex nu mu métti métti métti nañ ko xeex benn yoon mu jeex ndax bu ñu lajjee nag ba Macky Sall def li mu bëgg réew mi dañ toogaat ay ati ati at jooy suñuy gët rek la ñuy yor am na ko jox léegi exemple réew yooyu ñuy wax les pays de l'Est ñoo gën a métti fi fuuf ndax xamuñoon démocratie ba léegi sax daana xamuñu ko waaye géorgien yi bi seen président jëlee loi bëgg a tënk préfet yëpp dañoo génn sot nañ leen ndox bu tàng dóor nañ leen grenade lacrymogène waaye ñaari fan la ñu def gouvernement bi retiré projet de loi bi Macky Sall li muy jaay doole yëpp amul dispositif bu mën a tëne bu mën a tenir ñetti fanu manifestation fii Sénégal ñetti fan bu ko sénégalais génne manifester Macky Sall attanu ko kon nag bukki bu yabee waxambaane ci doxin nga la Macky moomul réew mi groupuscule bu ndaw bi mu àndal moomuñu réew mi ndax tekkeenu tekkeetuñu fi lu bëri yàlla xam na ko moo tax ñu ne nun de li ci suñu wàll dinañ ko def waaye dañ koy ànd ak yéen askan wi loolu moo fi des